waaw mbokk yi euh, comme ni ma ko waxee ba léegi ñu ngi ci fii nga xamante ni si mooy Grand Yoff muy benn euh, xew-xew boo xam ni saa su ne day am ki koy amal mooy euh, le directeur Abdoulaye Diop mu yëngu ci wàllu social di président mouvement SMD Sénégal moo ñu ko jaral tey nag ñu taxaw ak ki nga xamante ni si mooy DJ nekk chargé de communication peut-être xam naa li ci des moom dana ko gën a leeral mais DJ ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax di aussi di leen remercier tamit seen teewaay. DJ gis nañ ni lu mel ni yéen a koy def faral da ngeen a koy def tout le temps di ko def euh, seen siège bi nekk fii ci Grand Yoff tey nag moom est-ce que mën nga cee ñëwal nit ñi li waral saag yu bari yeeg laa yeeg ak yooyu. voilà comme euh, niñ koy faral di euh, tout le temps parce que biñu jogé samé municipal def une don de 200 100 et quelques millions jogé fofu ton tamit dem euh, ci talibé yi ñu né nak pourquoi pas duñu renforcer la capacité des, des élèves biñu préparer sen BFM yi indi nañ len fi plus de 200 élèves renforcer len ci BFM bobu ñu am 90% réussite Nous dama nañ am nañu 100% réussite après ñu jogé fofu ñu ne carrément donc yéen ñi nga xamné ne yéen a ci BFM bi ak euh, suñu rak yi def CI CP jàpp 2 euh, dinañ leen euh, distinguer ay fournitures scolaires xawna nak nag donc moo tax ñu jël plus de 300 fournitures scolaires war ko jox les élèves yi nga xamné ñoo dëkk fi ci bir Grand Yoff parce que social la ñuy def et que tout le temps dañuy bëgg tout le temps tamit di def social ba ñi ñi di ci yëg sen bop mais gis nañ affaire bi Grand Yoff rek la nek mais est-ce que vous voulez ko bëgg ait Grand faut dafa génn Grand parce que aussi il est international Hein? waaw Ablaye est international moi euh, actuellement nous sommes en partenariat avec euh, le cabinet Sans Égal mi nga xam ne tey jii euh, di saluer di remercier encore ci jàpp bi ñu ci fourniture scolaire parce que nous tamit may nañ ñu plus de 200 et quelques bourses scolaires yi nga xam ne tey mayaat nañ ko seen élèves mais Inch'Allah, di au mois de janvier nous dem dinañu samp suñu bopp ci Kolda ak euh, Matam ak euh, fi nga Saint-Louis. mais mën nga ñuy wax tout ci Ablaye pourquoi Ablaye social. waaw Ablaye tay nak euh, dama dañuy wax juste ci SMD mais dañuy waxat tamit ci Ablaye parce que boy xol Ablaye dafa nek ben doomu Grand Yoff bëgg Grand Yoff tay boy xol xexam mo nek xex ndax Grand Yoff jëm kanam parce que yenn saa day woo mais rek paa yi ñu ñëw fii mu naan leen lan mooy problème Grand Yoff ma ciy dégg sax benn pa parfois mu naan Grand Yoff dafa njëkk yeewu mujjee sëlmu ñu mu nekkul pourquoi léegi à travers loolu paa bi wax Ablaye dem ba xalaat pourquoi pas mom du tabac Grand Yoff 2 et que cité bi mu ngi actuellement début construction bi dinañu commencer juste au mois de janvier tamit ci la commencer début construction euh, cité Grand Yoff 2 lépp rek Ablay Diop social ànd seeg ñi nga xamné moy wa SMD Sénégal mo ñu ko jaral. mais Ablaye jàpp nañu da fay de politique mi ngi ànd le président Macky Sall est-ce que nekkuni li ngeen di def le président Macky Sall len ci jappalé ci walu social nous ñun avons euh, daanaka la def euh, amul autorité à part le cabinet sans égal parce que boy, fourniture scolaire on a fait des collectes de dons il ay ticket y 500 la y jar a 1000 francs a 5000 francs donc nous avons biñ au niveau de Grand Yoff à l'extérieur de Grand Yoff ñu a fait biñ ko 300 sacs. jamono toll nii ak euh, li nekk ci biir saak bi parce que du ay saak rek am na saak ak euh, li nga xam ne tamit mu ngi ci biir saak bi. bu ngeen jógee fi ci yeneen étape ngeen di nekkaat ci comme neen ngeen. Mm-hmm. da ngeen génn tuuti Grand Yoff. Mm-hmm. te gis nañ ne sami municipal bi aussi xam nga deux cent et quelques milliards. Euh, deux cent et quelques millions. c'est pas du tout facile. Mm-hmm. ngeen def ko ci foo xamante ni ci am na ñu ñu ko yaakaare woon. ñoo xam ne tey gis nañu Ablaye amul benn portefeuille boo xam ne état jox na ko en tant que aussi responsable politique. mais bu ngeen jógee ci li ak yoy mu def yop ci yenn étape ngeen di nekkat wa donc bu ñu jógee fii nii tey dimanche mardi di ko di la ko joxaale exclusivité euh, dañuy jox moy matla yi ngeen ni seen euh, ci ginnaw dañ koy jox prison rebeus ak euh, ñi nga xamné moy mooy camp pénal plus ay extincteur parce que dañu gis ni incendie dafa bëri jamontoon ni ci prison sénégalaise. et que dañu def constat que ni amul benn prison bu nek Sénégal bu am extincteur et que ñu indi ay extincteurs plus de 250 cent indi nañ ko ak euh, ay compresseurs tamit euh, lool yëpp war ko dugal tamit ci prison yi nga xamni ni ngi fi ci bir Sénégal d' accord euh, bu ngeen gisee loolu mooy euh, kii muy euh, DJ chargé de commission bi nga xam ni moom mooy SMD di Sénégal moo ñu ko jaral gis ngeen li mu wax léegi am na loo xamante ne wax na ko war nañu dem ci biir prison yi yóbbal leen li nga xam ne ñooy fay lakk yi te loolu bariwul ci prison yi am nañu ko matelas yi gis ngeen ko lim toll lim bi bari na bari goo xam ni ñu ngi ko war a yóbbu ci prison yi aussi pour jàpp leen pour dimbali leen loolu aussi day dellu si waat wax ni doomi Sénégal. doomi sénégalais am na lu baree bari loo xam ni war na cee mën a bàyyi xel réew mi ñu nekk di Sénégal am na fi ñoo xamante ni si ay nit ñu baax lañu di def social ñu war leen a jàppale nag ndax ñoom seen lépp mooy dimbali doomu aadama boo xoolee boo jëlee ku mel ne Abdoulaye Diop fii la dëkk Grand fi la juddoo fi la yoroo fi la màggee yor société bu mag boo xamante ni si tey mi ngi ànd ak li nga xam ni mouvement bi muy mouvement Sénégal moo ñu ko ñor muy social di dimbali nit ñi. donc li war nañ ci mëna a xel war war nañu mëna a xel bu baax a baax ni Sénégal dëkk la boo xam ne comme ni mu ko waxee ñoo ko bokk nit ñi war nañu dimbalante ku mel ne Abdoulaye Diop lan nga ci yokk loolu. Euh, tamit euh, dañuy préparer euh, les 48 heures des sans-abri.

jox leen euh, ñu féete ndokk ñoom li nga xam ni mooy euh, nuit de sans abri boobu te ren bëgg nañu saggal sargal jigéen ñi nekk biir Grand Yoff ak euh, Wally sekk kon daal ñu jox leen rendez-vous ren bëgg nañu sargal jigéenu Grand Yoff ak sekk Seck mardi ñu ngi leen di jox rendez-vous war nañu dem ci prison yi ak Allo Dakar TV international ñooy ànd ak yéen ci li nga xamante ni si mooy mouvement SMD lépp loo xam ne ñu ngi ko xewle rek daañu ko ànd ak yéen jëlal leen ko indil leen ko ñu xam ni nag ñoo ko bokk. lu nit ñi bokk nak dañu koy seddo buñu ko seddo ba nopi kenn ku nekk war nga ci jël sa wàll Sénégal nañu jël ci exemple ku mel ne Ablaye Diop président mouvement SMD dj loo ci dolli ak lan ngay wax ni moom ñi nga xam ne tey ñoo fi dajaloo. waaw sant yàlla rek bi ñu waa Grand Yoff defee confiance parce que gagner suñu confiance gagner confiance waa Grand Yoff c'était pas facile di ñaaxaat jeunes yi que ñi nañu ñëw adhérer ci biir association parce que cause bu noble la tey ubbil nañu suñu porte ñëpp muy tay acteur culturel bi muy sportif bi muy mbeur bi ak ku mu mënti doon tay ubbil nañu suñu porte ñëpp képp ku bëgg ñu jappalé la ak ci cadre bu mu mënti doon na ñëw dinañ la jappalé inshallah allah ci kàttanu yàlla. jërëjëf Didier. merci.